kii ñu leen di nuyu bu baax leen waat sax la ñuy wax ñu ngi fii tey ci ministre des sports euh, bu ñu nee ministre des moom xel yi dem ci sport dans son ensemble waaye tey comme ni ngeen ko farale di gise ci làmb Leewtoo ñëw tey set si nga xam ne moom mooy euh, le directeur monsieur Cheikh Sarr Cheikh Sarr le directeur des infrastructures euh, ñu ngi leen di fay Cheikh Sarr dañuy dem rek directement ci question yi ndax xam nga euh, làmb dafa am fu mu toll tolluwaayu làmb moom euh, Sénégal xam nañ fan na ci làmb doon ci wàllu sport sport yëpp moom dox waaye nag na làmb ji nga xam ne dañu nañ ko tuddee bijou en or wala lu mu mënti doon wala jamaa wala lu mu mënti doon en tout cas eh, eh, ahlu làmb yëpp rafetlu ko waaye mu am lu gis lu bëri coow li commencé gën a bëri def nañ ko ngir làmb waaye tey dañoo ñëw mu mel ni bëriwuñu sax liñ fay tëgg ana lan lañ fay daw promoteur yi la wala ci amateur yi la wala ci lañu tegal axlu làmb moom moo demut na mu war a demee lan moo ci sa xalaat euh, jërëjëf euh, tout d'abord danga may may bala may tontu ci question bi ma dellu ci li nga wax maanaam effectivement bijou bi xam Euh, di remercier aussi di leen wax ni ni nga wax làmb dafa am njëriñ ci réew bi euh, sport sénégalais mënoo tudd benn discipline wala ñaar wala tuddudoo ci làmb ndax dafa nekk un boo xam ni euh, jàpp culture Sénégal bokk ci suñu dund tamit ñu koy wax muy sport national loolu moo tax le ministre des sports doon nañ sax naan xëy na mooy ministre de ministre làmb yooyu waaye daf ko def xëy na pour xam ni dayoo làmb moo tax sonn ci def ci liñ ci war a def yëpp sotte euh, li nga wax ni nag effectivement euh, yàlla def na jot nañu bijou bi maanaam ni arène nationale euh, mën naa wax ni tey jii combat yi nañ ko bëri ndax su ma su ma juumul mën naa wax ni fi bu nekk tëggagum nañ bi bi bi làmb commencé lu mat fukki journée donc làmb mi ngi fay am am na nag làmb joo xam ni programme woon nañ ko naa loolu nga may bëgg wax muy combat bu mag bu fi amoon ñu ni dañ koy yóbbu ci stade Léopold Senghor euh, bëri ko fa ndax xajul ci arène bi loolu moo tax mais loolu lépp comme ni ñu ko waxee da doon fekk arène bi di door a pare door a tijji mais fi mu nekk nii mën naa wax ni arène bi boo xoolee dayoo maanaam capacité d'accueil lu ñu wax maanaam li mën a jël ci nit euh, ñaar fukki junni nit à part Léopold Senghor amul lu ko mën a jël fii ci Sénégal boo xoolee tamit lu ñuy tuddee commodité ci français moom mooy équipement yi nga xam def nañ ko ci arène bi amul feneen fu mu am waxuma Sénégal sax mais ci sous-région bi ndax bi ñuy defar arène bi c'était pour yombal lutteurs yi maanaam promoteurs yi bu ñu ñëwee lépp loo xam soxla nañ ko ci làmb bu fekk ko fa te yaakaar naa ni loolu am na ndax Eh, boo xaymaa la fa nekk tey kuy organiser làmb da ngay taal sa oto ñëw dugg organiser taalal sa oto ñibbi amul lenn loo xam ne tey di duñ ko ëndaale maanaam ci matériel donc loolu rek yombal na organisation bi ni ma ko gisee donc dafa tax eh, eh, organiser làmb yomb maintenant gisuma loo xam ne nag moo mën a tere nit ñi. Euh, promoteurs yi ñëw bañ a tëgg tëgg foofu yooyu parce que avant ñuy démarrer ministre dafa joxe instruction daal di ma waxal directeur de stade Iba Mar Diop que mu mettre à la disposition euh, làmb ji stade bi stade bi comme ça ku bëgg a tëgg fii wala nga tëgg fa ne nga tëgg donc ñu pour ñu yokk choix yi xam ah, nga bu njëkk Iba Mar Diop rek bi Demba Diop tëjee Iba Mar Diop rek la woon léegi nag promoteur bi am nañ choix ñu saisir CNG ni leen en tout cas Iba Mar Diop ak arène bi yëpp c'est à la disposition de l'arène bi loolu amee CNG euh, promoteur yi ak seen demande ñu envoyé ñu programme bi nga xam ne moom la ñu retenir daal ni date bii arène bi lañ koy tëggee date bi Iba Mar lañ koy tëggee programme yi ngi fi a nañ beneen programme pour corriger ndax chaque fois day am yeneen ñuy demandé waat donc ñun programme boobu la euh, dafa am loo xam ne nag arène bi fi mu nekk nii comme ni ma ko waxee amagul administration ndax xam nga période bi ñu nekkoon ci campagne bi mais xam naa dootul yàgg. Mm-hmm. ministre des sports daal ni ñu en tant que direction des infrastructures nañ ko gérer en attendant avec CNG intelligemment loolu moo tax bi ñu ñëwee dañoo woowaay CNG ñu toog fii ak euh, am na sax promoteur yoo xam ñu njëkkoon waroon tëgg ñett ñu njëkkoon waroon njëkk dañ leen woo fii ñu toog waxtaan mm-hmm. ci la ñu en tout cas ay conditions yoo xam ni moom la ñuy utiliser arène bi boobu léegi nag yàlla ñuy sutural en tout cas amul benn difficulté par rapport à ndax li ci amoon solo rek mooy que promoteur bi buy organiser mu am une contribution financière boo xam ne war na ko joxe pour arène bi euh, wax na si leneen ni nag CNG la le euh, comment dire le concert maanaam ci règle yi dafa am lu ñu tuddee sécurité sécurité nag mënoon da nga organiser làmb muy làmb muy football muy basket euh, yow boo doon organiser match football wala ngay organiser match basket fédération def naa la da ngay indi sécurité loolu fépp la nawetaan sax ñoom ñooy gérer sécurité léegi nag comme làmb aussi euh, bëri woon na coow maanaam ci wàllum euh, euh, violence ak yooyu il faut ñu insister ci sécurité donc loolu moo tax ak CNG ñu retenir woon ni ku fay organiser làmb conditions yi c'est très simple arène nationale da ngay wut cent agents de sécurité loolu mooy euh, première condition deuxième condition bi mooy nga joxe une contribution financière euh, la contribution financière ni ko laajee woon parce que démb jop 500 mille lañ joxe mais def nañu fexe ba bu ñu bu ñu bu ñu dépassé loolu nañ ko yombal donc loolu moo tax euh, ñuy joxe contribution financière de 500 mille francs donc loolu rek la ñuy def au niveau de l'arène nationale loolu lañ leen demandé mais boobu ba léegi nag gisuñu si problème ndax ah, CNG la ñuy liggéeyal ñoom ñoo koy récupérer ñoo bu ñu ñëwee loolu comme ni ma koy waxee rek c'est pour par contribution ci charge yi nga xam ni moom mooy combat bi di généré ndax ku organiser combat euh, euh, utiliser nga courant utiliser nga ndox waxuñu nga fay ko de waaye da ngay contribuer au moins parce que infrastructure mel nii aussi kenn mënu ko def boo demee jeneen infrastructure bu ma tudd ay tour boo ko bëggee original da ngay joxe dara du question fay ndax bu doon fay yaakaar naa arène nationale ku fay di nga joxe lu ëpp loolu ndax ku mais comme alalu euh, sportif yi la alalu euh, promoteurs yi alalu lutteurs yi la alalu amateurs yi la nañu fexe ba nga xam ne en tout cas lu ñu fay def mu yomb pour ñoom maintenant nag li ci des mooy am na yoo xam ne nag comme début la waxtaan moom mënul ñàkk euh, bu amee ay problème dinañu toog en tout cas def euh, évaluation ak waa CNG ak peut-être ñi mu concerne ñëpp ñu xam bu administration bi taxawee nan la ñu koy gën a améliorer organisation bi mais mën naa wax ni daal bañ ko démarrer ba léegi man gisuma ci benn problème ci bi aussi wax naa tuuti sécurité bi yàlla suturaal nañ xëy na ay violence majeure mineure lañ fa gis mooy bi je ne sais pas xamatuma ban combat la woon la amoon ay te loolu sax du woon ci arène bi li ñu gisoon moom mooy euh, ci ci mbedd mi la woon avant arène bi ci biir Pikine amoon ay quelques loolu sax mais léegi fi nekk le service d'ordre vraiment euh, le commissariat de Pikine ak commissariat central jël nañu ay dispositions yoo xam ne boo ko seetloo léegi gisatuñu fa violence ci biir combat bi en tout cas bi ñu ko jot a organisé amul ñuy ñaan rek loolu continuer ñu gën a redoubler d'efforts parce que loolu lépp bu amee tamit c'est parce que nit ñi dox nañ leen information xam nañ ñi fi mu nekk disposition yi jël foofu surtout en matière de sécurité ak vidéosurveillance yi nit ñi nañu def attention parce que ku fa def loo xam ne waroo ko def tamit moi je pense que ni euh, mën nañ la retrouver service de sécurité mën nañ la retrouver ba en tout cas bu ñu la war a teg daan tamit teg la donc loolu amul problème mais li ma mën a wax pour ma mm-hmm. moom mooy en tout cas fi ma toll gisaguñu benn réclamation wala dara loo xam ne wax nañu ko ña fay organiser ñu organiser sans problème bu ñu paree ñu def suñu rapport donc suma ci benn problème waaw. waaw mais fu mu ne nii malgré tout ça gars yi na leen dafa cher. ku ne bon xam nga dafa cher moom c' est c' est une appréciation personnelle xam nga dafa cher day mel ni li ñuy waxaalee lu ñuy mm-hmm. mais ni ma la explique rek mooy loolu. Mm-hmm. Euh, c' est une contribution à la charge contribution la. nit boo bëggee mbir aussi lu mën a doon di nga ci contribuer man bu man man su ma bëggee tey organiser mhm. match de football mhm. même stade Léopold mhm. même bu dee xanaa sax dinaa contribuer pour li ñuy tracer terrain bi je donne un exemple exemple la rek wala tey jii bu fekkee dañ ko war a bale ñu contribuer nee naa la fi mu toll nii amagul administration euh, am na charge yoo xam ni loolu ña nekk maanaam équipe nationale ba fa nekk ñoo koy jël en charge donc loolu te fi mu nekk nii kuy organiser combat tu es un euh, kii nga nu mu tudd euh, tu es un organisateur privé même su fekkee xam nañ ni combat yi di demee difficulté ñu am yëpp pour organiser ak contribution bi ñuy def yëpp tamit war nañu mën a comprendre que ni war nañu mën a contribuer sur cela mais man de gisaguma ku ñëw wax ma loolu. ni ma dafa cher wala daal. xëy na yaa ma ko yëgal. mais en tout cas suñu mission daal mooy fexe ba nga xam ni mu bañ problème. su amee difficulté tam dañuy toog ñu waxtaan ko ci ndigalu ministre ñu toog waxtaan xool li nga xam ne mën nañ ko apporter comme solution ñu def mais gisaguñu benn récrimination bu egsi à notre niveau ci loolu. Euh, ba léegi ma dem ci wàllu supporter yi nga xam ne am na benn lamb ju fa amoon am ay chaise yoo xam ne leen yàq mais est-ce que euh, kii arène bi euh, ci construction bi mënuñu woon xool ci norme lamb ji lu mu laajte maanaam supporter yi ñu bañ a def foofu ay chaise def ay chaise foo xam ne foofu lañ leen war ndax loolu la wala wala dafa am nu ma demee ne waaw loolu moom loolu moom ànduma ci ak yow ndax pour man euh, làmb espoir dafa mel ni rek ngay seetaani football wala ngay seetaani basket supporter làmb ak supporteru euh, football wala supporteru athlétisme mooy kuy supporter équipe danga xam ni li euh, wala mbër da nga xam ne li la indi mooy nga ñëw seetaan xool sa mbër mu bëree nga jógaat déglu ni ko ni ma daan déggee ñu koy wootee chaque fois bu amee làmb na supporter yi ñëw solo ba jekk ñëw bu ñu paree ñu ñibbi ndax mënuma accepter nga ñu mën a def dissociation boobu ndax chaise yi man je pense que supporteru làmb dañ ko dañ ko mérité ndax làmb euh, boo ngeen xoolee évolution bi année yi ñu yii nii année yi nga xam ne làmb en tout cas avancé na trop mm. donc toll na foo xam ne mérité nañ man li ma si gis daal moom mooy un travail sensibilisation maanaam waxtaan boo xam ni dinañu mën a yedd supporter bi ñu xam ni ñëwuñu pour xeex ñëwuñu pour def du vagabondage wala leneen mais dañ ñëw pour seetaan si sport dañ ñëw pour supporter seen mbër ni ko sportif footballeur bi di defee basketteur bi ko def kii seetaan yi tennis di ko def noonu la ñu war a def donc effectivement am na ñu nga wax nii am ñëw bi ñëwee bi commencé damu am na ñu ni ñu mais est-ce que waru leen mën a dindi chaise yi nekk ci kii bàyyi fa ay kii mais j'ai dit non infrastructure la bëgg nañ beneen infrastructure bu ñu tabaxaat ci Sénégal noonu lay dem muy arène muy stade ñu def ci ay chaise yoo xam ni parce que léegi loolu moo xew loolu mooy modernité stade mënatul nekk rek loo xam da ngay ñëw xool après dem sa yoon dafa nekk loo xam ni ñu ko tuddee euh, euh, comment ça s'appelle encore. est-ce Léopold Sédar Senghor. Euh, mënaguma la wax kañ la mais procédure bi mi ngi nekk en cours parce que xam nga dañ koy defaraat euh, en rapport avec euh, la coopération chinoise Grèce de Chine moo ko war a defar ak Sénégal gouvernement Sénégal léegi ñëw nañ def nañ travaux yépp fi mu nekk nii en Chine ñu ngi def lu ñu tuddee les procédures passage au marché il faut ñooy choisir entreprise bu koy defar ak naka lay demee euh, pense que réunion mardi passé euh, chargé nañu pour ñu xool déjà ñu ngi pour xool un peu loolu ñoom kañ la ñuy pare en rapport avec ambassade seen ambassade bi fi nekk ndax pare nañu ak kañ lañu war a pare mais bu ñu jotee information autorité bi dina ko wax le ministre dina wax kañ lañ koy tëj et yaakaar naa ni euh, soreetul mais bala ñu koy tëj aussi en tout cas euh, tous les acteurs yi nga xam ne ñu ngi fay évoluer dinañu dañu mën a waxtaani ñoom ba mën leen informer ba nga xam ni du mën a gàllankoor seen seen liggéey wala seen entraînement foofu ndax stade bi vraiment macha allah bu ko defaree nañu am un stade moderne ndax ça va être en tout cas à loolu fierté Sénégal yëpp la parce que stade bi dafa nekk un stade boo xam ni. muy comme Modou Lo Balla dañ ko mujjoon transféré yóbbu ko Léopold malgré def nañ foofu ay visite pour xool na a euh, arène mën na ko accueillir bii tamit am na combat bi ñëw mu ñuy woowee combat royal le 28 juillet bu Moustapha Diop ok wax na si si bi. nee na combat bi yóbbatu ko arène bi ñu ko yóbbu Léopold à ce rythme là est-ce que léegi arène bi ça va servir à quelque chose su fekkee ni amateur yi mëntuñ gis combat yi mag foofu si si si si si si si arène boobu. Euh, waaw dinaa tontu mais bala may tontu damay rappeler premier combat bi nga wax parce que effectivement premier combat bi euh, bi ñu ko jàppee ak le promoteur ministre euh, daf ñu mettre en rapport avec le promoteur mu ñëw fii ñu toog waxtaan. ñu def ay visite yu bëri ci arène du ñu demee je pense que jëloon nañ disposition yépp pour que combat bi ñu mën ko bi mais euh, promoteur bi après dafa bind lettre euh, bind ministre ñaan ko ndax mën na tëgg Léopold ministre nañu xool ak moom euh, nan la ñuy def parce que dafa posé woon problème de sécurité ak yeneen problème yoo xam ne posé woon ndax boobu xam nga ni dëkk bi dafa nekkoon ci période boo xam ni pré campagne électorale boobu ñu nga foofu élection yi xam nga donc dëkk bu nekkee ci pré campagne question de sécurité yi dañ ko war a jàpp ak ñaari loxo donc loolu moo tax euh, ñu demandé woon ñu yóbbu ko foofu ndax boobu dañ xalaatoon comme premier combat kenn tëgg mosul tëgg ci arène bi maîtriser gu ñu woon l' infrastructure peut-être ndax ñëw tëgg fa tëgg fa premier combat bi rek mu nekk combat test mënoon na am ay difficulté loolu moo tax bi mu bindee mu ñaan lale ministre bi nañ ko xooloon ak moom euh, ñu accordé ko. mais fi mu nekk en tout cas jotaguñu wala boog euh, ministre interpellé guñu wala boog joxaguñu benn instruction ci combat bi ngay juñu pour le mois de juillet euh, xëy na bu ñu ko jotee nag dinañ ko étudier waaye man li ma yaakaar fi mu toll nii amul combat bu ñu mënul tëgg ci arène nationale ndax ni ma koy waxee arène nationale euh, capacité d'accueil am à part Léopold amul infrastructure vingt mille places la et même au-delà jusqu'à 22 000 places Demba Diop 15 000 places la donc tey boo boolee Demba Diop Iba Mar Diop arène nationale mu lay ëpp capacité donc quel que soit combat bu ñu mën a tëgg war nañu mën a tëgg foofu. yoo xam ne ku nekk na sa mën a gis seen parce que promoteur yu ndaw yi ñooy gën a kaas par rapport ak frais de euh, location arène bi. Euh, bon man euh, on ne parle de location. xam nga man ñun on n'est pas habilité à louer fi mu nekk nii comme ni ma ko waxee du question location ndax tey boo doon xayma location arène dina gën a cher contribution euh, dina gën a ndax combat yi organisé contribution yi dina def Léopold Senghor Iba Mar Demba Diop c'est des cent ah loolu la woon Demba Diop donc pourquoi arrêt na expliqué naa leen léegi man du ma man su may xool du ma xooloo mais damay xool mën naa la defal léegi démonstration wan la ne la ku doon organiser combat di nga fay deux fois plus que di ngay fay ci arène nationale à à à à Demba wax naa la fii booy organiser combat doo indi chaise doo indi bâche doo indi sonorisation doo indi barrière doo indi suuf ah nest pas da solu taal sa oto ñëw dugg organiser taalaat tàggoo dem ñibbi amul leneen donc loolu nit loolu ngay xool service yi ñu la tegal tegal la vidéo surveillance de sécurité et cetera et cetera li nga wax nag xalaat la maanaam xool nu ñuy euh, euh, tegee ay ay ay ay ay ay ay contre participation yoo xam ni mën na bañ a tolloo loolu mën na nekk lépp waxtaan la il rien n'est fixe loo gis dañ koy waxtaanee. parce que par exemple arène bi dañ ko def pour but mais mën nañu fa yeneen sport démb rek ministre bi may jox ni ma nañu xool ak suñu service yi nan la ñuy defaree plateforme bi daañu ko def benn ñu xalaat plateforme boo xam ne bu ko defee mieux que bu ñu defaree plateforme bi dañ ci mën def basket parce que plein booy mën nañu fa ay match